mbokki daarul muxti ak dëkk yi ko wër xéewal egsi na ci seeni buntu kër yéen ñi am ay sànce fu mu mën a nekk wala ngeen am kër te am jafe-jafe fu ngeen def am ndox màggal gaa ngi jub si yéen a ngi am gan wala ngeen dëkkee fu sori lool te am fu ngeen denc ndox jafe leen lool wax leen alhamdulillah seeni jafe-jafe daal di nay tàggook yéen ngir indil lañ leen ay basse à eau di ay basse yu am lool qualité dëgër lool te mën a def ndox bâche yoo xam sur mesure la am na bâche 5000 litres ba 60000 litres waaw waaw 60000 litres laa 5000 10000 15000 20000 ba 60000 litres quantité bu ngeen bëgg stocké ci vous ndox rek am nañ basse bu ni 5000 litres di dina jël juróomi mbànd di mbàndi ndox yi ñuy jaayee ndox mu neex wala bu dix mille litre di jël fukki mbànd bu quinze mille litre di jël fukki mbànd ak juróom wala bu vingt mille litres di jël ñaar fukki mbànd am na ba soixante mille litre di maanaam buy jël juróom benn fukki mbànd képp koo xamante ni soxla nga ci bâche yooyu am lool qualité te dëgër lool mën a def ndox ba saa soo ko soxla nga am sa chantier fu mu mën a ne wala nga am sa kër amoo bassin te bëgg fooy denc ndox xéwal gaa ngi nii yow lañ ko indil ah, boo bëggee ci band yooyu mën ngaa jokkoo ak Baye Soxna bu Diop rajo Daarul Mukti FM ci 77 654 77 51 77 654 77 51 muy ay basse a eau di ay basse yu am qualité loola dëgër te mën a denc ndox li ko dalee 5000 litres ba mille litres lépp jàppandi na ci Daarul Mukti jamono ji mën ngeen a jokkoo ak Baye Soxna bu Diop di ngeen ci am ay leeral kon mbokk yi xéwal gàngoo egsi fii ci Daarul Muxti topp di nu seetaan amaat na nu mbégte lool dellusi fas yéene ànd ak yéen ci fukkeelu pàcc bi ak ñeent jëm ci tees bi Rawane mbay bind te wax ci ci sëriñ bi loo xamante ni wérut ñu àndoon ak yéen nag ngir di jubbanti loolee ba ñëwoon nañu ak yéen ba ci fukkeelu pàcc bi ak ñett kon dañuy door ak yéen fukkeelu pàcc bi ak ñeent ba ñuy tàggatoo ak yéen ci fukkeelu pàcc bi ak ñett ñoo ngi doon leeral la rawaan bay waxoon ni sëriñ bi yoonu gànnaar wi wuute naag yoonu gabon wi ndax gànnaar dana fa yokk ab xam-xam maanaam dana fa jàng mooy bu njëkk bi ba ca des mooy dana fa am péexte ndax ma nga ca kër ab sëriñam ba koy aar di Cheikh Sidiya ñu doon ko xamal nag ni ko sëriñ bi dafa xam li muy xam lépp doog a dem gànnaar ñoo ko doon wax ni ko sëriñ bi mbind na ba waajuram sëñ Mor Anta Sali boole ko ci programme bi mu doon jàngale ci daaraam kon ci fukkeelu pàcc bi ak ñeent dañuy wéyal foofe nu toll woon doon ko xamal ni ko sëriñ bi day lu jiitu muy dem gànnaar bind na ci mbirum soufisme moom sëriñ bi téere yi ñuy bëgg a tudd bind na ko lu jiitu muy dem gànnaar googee nga wax ni dafa doon yokk ab xam-xamam sëñ bi bind na tasaw di chixaar muy yóbbalu ndaw ñi lu jiitu muy dem gànnaar ci biir tasaw du chixaar lan la fay jàngale dafay tënk ñetti mbir yi nga xamante ni bii moo tënk diine muy imaan lislaam ak ihsaan sëriñ bi bind na jawharu nafis sëriñ bi bind na tasawudu shixaar tasawudu subaan di yóbbalu waxambaane yi nga xam ni ñetti mbir yooyu muy lislaam ak lixsaan ak imaan moom la sëñ bi gën a xóotal na mu ko bindee woon ca tasawdu shaxaar da ko gën a yaatal ci tasawdu subaan sëriñ bi lu jiitu muy dem gànnaar bind na tasaw euh, muna munaawiru sudóor sëriñ bi bind na maxaaliqu niiraan bind na naxju xalaa el xaaj bind na majmuu an nooreyni kon loolu yëpp sëriñ bi bind ko lu jiitu muy dem gànnaar rawaan moom gis ni sëriñ bi dem googu ñu ko yóbbu gànnaar dana fa jàng yokk fa ab xam-xamam nu di ko xamal ni ko sëriñ bi xam na li mu doon xam lépp doo ko dem gànnaar ci yoonu gànnaar woo itam nu xamal ko ni ko day am solo lool ñu xamal la ni la tukki bi sëriñ bi tukki woon gànnaar ginnaaw bi sëñ Mor Anta Sali wàccee ab liggéey te digganteem ak yóbbu gi ñu ko yóbbu gànnaar di fukki at ak juróom sëriñ bi waxuma la yoon wi ko tubaab yóbbu gànnaar waaye yoon wu njëkk woo sax demuñ fa woon ngir jàngi walla mu dem fa ngir sàkku ci xam-xam demoon na doon siyaare niti yàlla yi kon tukkeem bu njëkk boobu du tukki bu mu demoon ngir jàngi ndax gannaaw waajuram du Mauritanie rek la dem dem na ay barab yu bari yoo xamante ne ay nit yàlla fa nekk kon rawaan bu mu tuddee sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana bu ko cité moom day weddi boppam ndax moom moo wax ni sëñ bi yoonu gànnaar yi li tubaab di wax profito daf ciy profito pour jàng fa ba noppi wàññeeku ni sëñ Mouhamadou Lamine Diop nee na bind na ca ni sëriñ bi taalif na lu tollu ci fukki xasida bi mu nekkee Mauritanie kon bu ñu xoolee sëriñ bi li mu bind ni mu tollu lu jiitu muy dem gànnaar te nga wax ni gànnaar fukki xasida la fa bind loolu mooy weddi ni sëriñ bi dafa demoon gànnaar ngir wuti ji xam-xam ngir jàngi ndax téere yi mu fi tudd yëpp wala téere yi nu fi tudd yëpp ci tontu bi mag ci naaw mar ba wuute na lool ak fukki xasida yooyu nga wax ni sëñ Mouhamad Lamine Diop nee na sëriñ bi taalif na ko ca gànnaar kon ci leeral mooy yóbbu ko ñu ko yóbbu woon gànnaar yóbbuwuñ ko foon ngir mu jàngi ndax xamoon na li muy xam lépp demu fuy woon itam ngir yokki ab xam-xamam ndax ku bind lii ñu tudd doo ko dem gànnaar dégg ni arab lu jiitu muy dem gànnaar ak jekku gi mu jekk woon taalif boo nee dafa doon dem gànnaar en ngir yokki am xam-xamam kon loolu wérut loolu mu wax ni sëriñ bi amul woon jafe-jafe ndax mu ngi dëkkoon ci kër sëriñam boobu di sëriñam ba noppi di ko aar muy Cheikh Sidiya loolu itam wérut ndax sëñ bi dëkkul woon ci biir kër Cheikh Sidiya bi mu nekkee gànnaar sëñ bi bi mu nekkee châtellement booba Cheikh Sidiye mu ngi woon butti limite te loolu seede bi nga xamante ni bii am na colonel bu ñuy wax Montané 5 4 3 2 1 0 maa ngi jégalu loolu mu wax liy wane ni sëriñ bi bi muy nekk saatulma Cheikh Sidiya mu ngi woon butti limite seere si nga xamante ni bii ki nga xamante ni bi sëñ bi nekk gànnaar ba mu fay doog a dem Xavier Coppelani moo ko doon saytu moo doon kilifa ga fa nekkoon am ay jafe-jafe ak ay kilifay diine foofe ba ñu faat ko bañ ko faatee Etienne Deveau wuutu ko fa ci atum 1905 ndax Xavier Coppola ni ñu ngi ko faat fukki fan ak ñaar ci weeru mai 1905 ka ko fa wuutu woon nag di gën développé bi sëriñ bi ñibbisee Touba 1927 ci juillet ndagam yoroon wala saytu bi moo doon kilifa ak gi nekkoon Mauritanie li ko ci 1905 fa bi ni bi ak ab article def seede ci sëriñ bi seede soosu ba mu ko bindee mi ngi ko fesaloon ci journal bu ñu wax les annales coloniales di journal bu génnoon ci ñaar fukki fan ci weeru octobre 1927 soo demee ci la mu bind dafa wax ni demoon naa doon seeti maanaam bi ma jëlee service ba noppi demoon naa seeti Cheikh Ahmadou Bamba Sassoulma ci seere soosu la wax ni Cheikh Sidiya ma nga butti limit ba ma fay jógee di ñëw Sassoulma la ma wax ni ma noo mu demee ak Cheikh Ahmadou Bamba su ma demee naa ko seeti kon loolu mu wax ni sëriñ bi kër Cheikh Sidiya la nekkoon loolu moo koy weddi li mu wax aussi ñi sëriñ bi li wuutalee tukkib gabon bi ak tukkib gànnaar bi maanaam gànnaar moom amu foon ay jafe-jafe ndax dana fa jàng yokk fa xam-xamam waaye it mu ngi ci kër Cheikh Sidiya mi dib sëriñam te diko ar wote lol ak Gabon kon neena Mauritanie yi dal sëriñ bi amu fa ben jafe-jafe lolou mo wax nak day wuute lol ak li nga xamanteni bi ab lettre la bo xamanteni commissaire au gouvernement général en territoire civil de la Mauritanie bindoon na ko ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars 1907 ca biir leetar boobu moom commissaire boobu daf ci doon wax ni sëriñ bi dey nekkee noonu wi mu nekkee Mauritanie dëkkuwaay bi ak lépp metti na metti doo xamante ni dafa jeexital sax ci jëmmam ndax fii mu nekk ak tàkk la désert la ay dune de sable moo fa nekk fu maral la itam fu ndox jafe la wax ca ay yu baree bare yoo xamante ni bi nee na nekkiinu sëriñ bi fii ci Mauritanie jaadootul ñu koy seetaan ndax ba mu fi ñëwee ba léegi gisuñu ci moom benn jafe-jafe ci loolu sax ca la doon sàkku ngir ñu delloosi ko senegal kon tubaab yi nga xamante ni ñoo yoroon sëriñ bi foofa li ñu bind ci aw nekkiinam te loolu su ngeen demee ci annexe bi nga xamante ni bii ca jeexelu su téere ba la nekk di ngeen fa fekk li commissaire bi bind ci ni sëriñ bi nekke woon Mauritanie ci nekkin wu metti mu wuute lool ak lii nga xamante ni bii rawaan mbay am xelam la jëfandikoo rek ni sëriñ bi tukkib Gabon bi tukkib Mauritanie bi ba ko dàq ndax ñaari mbir bu njëkk bi mooy Mauritanie dana fa jàng dana fa jàng yokk xam-xamam bi ci des mooy kërub sëriñam la nekk du am benn jafe-jafe te booba Cheikh Sidiya mu ngi butti limit sëriñ bi moom mu ngi woon saatulment kon loolu lañ ko tontu ci fukkeelu jubbanti bi ak juróom-ñaar bu ñu ñëwee ci

lee mu waxoon mooy wone jàmm ji nga xamante ni sëriñ bi amoon na ko gànnaar maanaam lee mu duuraloon sëriñ bi ci jàng faak yokk xam-xamam nekk kër si Cheikh Sidiya nee na loolu mooy wone ak dal ak jàmm goo xamante ni bii yoonu Mauritanie bi sëriñ bi am na ko ci mu ni moom rawaan sëriñ bi ci boppam moom moo bind tubaab yi ngir di ñaxtu mbooloo mu bari mi bàyyi ko Sénégal muy taalibe yi ñëw di ko ziyaare si mbokk yi dégg li rawaan wax rawaan nee na sëriñ bi nekk ga Mauritanie dafa neex lool amul benn jafe-jafe wuuteeg li commissaire bi bind mu teg ni sëriñ bi ci boppam moo bind tubaab yi di ñaxtu wax ni ña fay ñëw di ko ziyaare si Mauritanie dañoo bari lool ba na ci tubaab yi sàkk pexe ngir murit yi jóge Sénégal di ko ziyaare si ñu ko siyaaree ci Mauritanie ñu wàññi leen loolu moom la rawan bind danañu ci ñëw waaye dafa mel ni li ñu cërale woon ci ay simili dafa mat ba kon fukkeelu pàcc bi ak ñeent fii leen ko yemale dig daje ci fukkeelu pàcc ba ak juróom nu wéyal lii rawaan wax ci tees ba ci nekku sëriñ bi Mauritanie kon noo ngi leen di sant di leen gërëm dig daje ci fukkeelu pàcc bi ak juróom mbokki daarul muxti ak dëkk yi ko wër xéewal egsi na ci seeni buntu kër yéen ñi am ay sànce fu mu mën a nekk wala ngeen am kër te am jafe-jafe fu ngeen def am ndox màggal gaa ngi jub si yéen a ngi am gan wala ngeen dëkkee fu sori lool te am fu ngeen denc ndox jafe leen lool wax leen alhamdulillah seeni jafe-jafe daal di nay tàggook yéen ngir indil nañ leen ay bâche à eau di ay bâche yu am lool qualité dëgër lool te mën a def ndox bâche yoo xam sur mesure la am na bâche yuy jël cinq mille litres ba soixante mille litres waaw waaw soixante mille laa wax cinq mille dix mille quinze mille vingt mille ba soixante mille litres quantité bu ngeen bëgg a stocké ci wàllu ndox rek am nañ bâche bu ñu toll bâche cinq mille litres di bâche boo xam ni dina jël juróomi mbànd di mbàndi ndox yi ñuy jaayee ndox mu neex wala bu dix mille litres di jël fukki mbànd bu quinze mille litre di jël fukki mbànd ak juróom wala bu vingt mille litres di jël ñaar fukki mbànd am na ba soixante mille litre di maanaam buy jël juróom benn fukki mbànd képp koo xamante ni soxla nga ci bâche yooyu am lool qualité te dëgër lool mën a def ndox ba saa soo ko soxla nga am sa chantier fu mu mën a ne wala nga am sa kër amoo bassin te bëgg fooy denc ndox xéwal gaa ngi nii yow lañ ko indil ah, boo bëggee ci bandi yooyu mën ngaa jokkoo ak Baye Soxna bu Diop rajo Daarul Mufti FM ci 77 654 77 51 77 654 77 51 muy ay basse a eau di ay basse yu am qualité lool dëgër te mën a denc ndox li ko dalee mille litres ba 60 000 litres lépp jàppandi na ci Daarul Mufti jamono ji mën ngeen a jokkoo ak Baye Soxna bu Diop di ngeen ci am ay leeral kon mbokk yi xéwal gàngoo ko egsi na fii ci Daarul Muxti Alhamdulillah